yeah salaamaaleykum peace and love for everybody maa ngi nuyu ñëpp the name is General G aka the Sadiq Vibes aka the winner aka the ghost esprit dama choisi def hip hop loolu rêve la woon depuis temps booy en plus tamit dañ si milieu boo xam ne wala dama juddoo si famille boo xam ne bëri woon na ñoo xam ne dañuy def musique ak ko màggaale quoi 2017 laa commencé dafay si mbedd mais boobu jëloo moo xam ne au laa commencé def dem si ay compétition vaincre mooy loolu jaar naa si ay compétition battle ay sayfa mais jaar naa si ay compétition tamit yoo xam ne amoon am na boo amoon bandi fii nii maa doonoon vainqueur bi ak yeneen ak yeneen. ceek bu lamiñ di génnee deret boobu bëñ la teel du man ak ñom du yeen amul ben rapper buñu ñu may tëkkal leen teel rest in peace George Floyd after fuck la justice nel ma ñu jema a juge rabbi game amul tetni fils ci sen bir man rek ngay gis rey la di la siñ siñ la di la biñ rend lu ma téeméeri rapper tan ñi gëna goor ji gëna def len sacrifice ay wacce na fi yeneen bar ta bay tay ma ngi tok ci sama 16 jago yi may àndal yëpp min sama 20 bar teppi naa fi yeneen taat te ba tey soluma kiss tepi bi tàmmu naa ci rapper yi gëna jaay taar